ndaw ñi eh, at mu bees mi ñu ngi leen ci ñaanal yal na ci leen yàlla defal naataange yal na ci leen yàlla defal jàmm defal leen ci sutura eh, yal na yàlla def it maanaam eh, bu dee ñuy jàng njàng mi réussir bu dee ñi am métier yàlla jox leen ay place yoo xam ne dañ ko mën a liggéey ñu ngi liggéey ñuy liggéey yàlla saxal leen ci fa ñuy liggéey ginnaaw lool it ñu ngi recommandé comme année électorale la ñu jëm te xam ngeen électorale dafa bëri enjeu yoo xam ne daf cee nekk ko defee ñu góor góorlu te xam ne ñoom ndaw yi ñoom ñoo yori réew mi ëllëg hmm? kon ñooñu am na lu réew mi di xaar ci ñoom am na jëfin bu réew mi soxla ci am na taxawaay bu réew mi soxla ci ñoom bu ko defee taxawaay boobu ak jëfin boobu ñu bàyyee ko xel bu baax a baax maa ngi leen di dénk euh, soyez bonne année et heureuse année yal na ñu ko yàlla defal defal ko ñëpp yéen tamit kazalika kontaan nañ ci yéen bu baax a baax a baax. jërëjëf